ba léegi koo gis rek nekk na ci mbégte ndax wax naa ne loolu sëñ Moussa Ka bu dul woon dem gi wala fu te kon bi daan ñëpp dem dem gi mu demoon wuy ji la bëgg a wax ndax ngir doxal jàmm moom sëriñ bi ci yooyee jamono dafa dëkkoon fii ci mbokk bi ci Mbàkke Bawol bi mu ñoom dër dër convocation yi bari mbokk yeeg woy jur yeeg ku ci nekk di ca tiit bàyyi mbokk gi fi pour may leen jàmm dem daaru mar naan bu mag dem sañ ci mbàkke bari ngir gën a jege ay wax te ñii mu wan leen indil jàmm indil jàmm aw askanam ba nopp da jëkk def muy loolu mu ñaan sànq ci bayit woowu ne yàlla na ko yàlla defal jàmm ak jabootam ak i bokkam loolu rek mu ko taxoon jóg ndax bu fekkoon ne moom dafa dem rek wuy ji noonu wala mu lànkoon convocation boobu kon doon nañu xam ne doon na gën a metti ci moom waaye doon na gën a metti ci mbokk yi ba ñun ñi taxaw di wax it ku ne xam na ne ca jamono yooyu la suñuy waajur ak maam àgg ci sëriñ bi fekk ko jamono boobu fa la ñu jébbaloo ci moom àndanteeg moom kon bu fekkoon ne jamono boobu escadron bi nga xam ne dem loolu nañ ko teg foofu ci jeewal ak bi nga xam ne nekkoon na ci àll bi di wër tund yi mbakki bari googu war a dugg ci moom attaqué ko waaye ngir bëgg jàmm moo tax mu ne ñokket dem wuy ji jàmm rek daal di am kon jàmm jooju nag moo indi tey màggalu Tuubaa màggal bi jàmm la rek ak i xéwal mu teg nag wax ci ne bis bii day wu ci dara lu dul mbégte jaamu yàlla ji ñun ñoo xam ne munta ñàkk nu ko koy def di ko ko santale yàlla ci bis bii waaye ba mu koy woote dane jàmm bu nekk ni ñëw santale ma yàlla ci xeeti bernde li ko dale ci gëléem ba ci ganaar lu ci waay man rek nga def ko ci bis bii màggal gi ñu bari dañ naan màggal gi mooy indépendance su muri yi may leen du indépendance su murid yi de màggal gi dafa am prise d'armes dafa am prise d'armes indépendance boo koy feete da def prise d'armes ne woon maa ngi dem liggéeyi su ma ñëwee ngeen xewlu noo ngi xewlu kon mooy sunu xéewal